ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir a jot moo leen vidéo boo xam ne dugal nañ ko bisub Cheikh Mouhamadul Fadel bii mooy sëriñ Fallou dafa am lu ñu koy bàkke loo xam ni lu nit gàtt gàtt xam-xam dana ko nangu mooy na am mu am du am du am yàlla su mborom moo ko defal Cheikh Mouhamadul Fadel. dafa jaay lépp lu am ci Sëriñ Tuubaa jënd ko ak taalibe Sëriñ Fàllu bi muy ñëw xam nga Sëriñ tubaa yoonu murit dafay incarné benn baat bu ñuy wax irham jami alwara <laughs> e, e, moom la yoonu murit di incarné irham jami alwara moo dox diggante moo dox moo moo diggante Sëriñ Tuubaa ak jaam ñi irham jami alwara googee Sëriñ Fàllu daf ca bay waaru rëy rëy mooy yërmaande doomu aadama yi lu mu mës a am bokk ak nit ñi lu mu mës bokk ak nit ñi mës a am mbokk ak nit ñi lu mu mës a ak nit ñi kon nag bis bu tedd bii di bisub Cheikh Mouhamadul Fadal sëñ Fallou Mbacké nga xam ne moom laa war na njëkke ñu ngi rafet njott ci barkeem ak ci leeram ni lépp luñ ci ñaan sa borom dinañu ko defal ndax sëñ Fallou ku juba ak boromam